jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si li mu nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ràng ak poche def dara sëñ Mbàkke dem ba yëkkati jotaay bi ci weer wi nu nekk muy rajab di waxtaani julli maa ngi tolloon ci philosophie jàpp min hikamil wudu wax fi nu yàlla sante njàpp te mooy almaida ay siis wax cir yañ war a raxas ci njàpp alayhi salaatu salaam boole ca yéene jàpp bomb gaag lënkale ga ma ne woon démb kiy jàpp bi muy raxas ay loxoom te yonent bi day wax ne boo raxasoo bàkkaaru loxo dañ galax ndiku bàkkaaru gémmiñ dañ di ko topp ba mu jeex waaye li muy tekki mooy kii raxasu kon na raxasuwaale ci li loxo yi def lépp cig mooy waaye loxo li muy def cig mooy lu ci gën a jamono yi léegi mooy signature boo warta def wala double facturation wala recrutement yu jarul ci yoon te loxoo koy def ndax koo xam ne kii boo ne okkee rek mu am lu lu lu jàll sa ok bi da ko war di seet te bis ngi ñëw nag waaw ñu seet loolu la ko loolu ci njàpp raxasu gi nit ki raxasu ay loxoom war naa bàyyi xel ci ne loxo daa mën a yàq lool daa mën a moy lool daa mën a tooñ lool daa mën a jël yi fi jàmbur naka noonu ki raxasu ci ay loxoom na bàyyi nekk ci gannaaw clavier teg cay baaraamam di bind lu jaaduwut teg cay baaraamam ca clavier ba di bind lu jaaduwut di ko jëmale ci derub nit walla di ko jëmale ci derub mbooloo walla di ko jëmale ci la ab ànd yooyu ñu bàyyi ci xel baax a baax ci njàpp ndekete yëmutoon rek ci raxas loxo bi déedéet liyu tahirakum te a tahaara du set moo gën a rëy set tahaara mooy laab liyu tahirakum dama leen a laabal laab na ak set na nag du benn waaw set na laab na laab moo gën a xóot set ndax dafa laab ba noppi set set nag daa set rek mën na ñàkk laab kon bu yàlla tuddee baatub laab mooy sunu loxo yi nu bañ cee def naka su dul noona alayhi salaam doon na wax ne ay woo gis loxoo ko def mbaa mbaa làmmiñ ay woo gis ci àdduna si rek ñaar képp ko def du tànk du bopp loxoog làmmiñ rek al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi waaw ay woo gis mu taal tàkk ci pénc mi bu ko loxo defut gémmiñ a ko def ñoom ñaar dong ñoo fi def aw ay moo tax bi nit ki nit kiy jàpp bi mu raxasoo gémmiñ nga la ca teg raxasu gallax la ca teg ñoom ñaar ñooñu ñoom ñaar ñooñu pénc mu tas ñoo ko tas bokk gu yàqu ñoo ko yàq waaw waaw xeex bu am ñooma fit fitna ju am ñooma waaw rekk tabarkal moom loxo mi ak moom gémmiñ mi moo tax booy jàpp boo jógee ci loxo rek ci gémmiñ nga jëm te la ca gémmiñ nga loxoo ko koy jox mooy fab ndox mi def ko ci gémmiñ xojo xojo ko moom loxo ànd ak moom di yàqum ci waaw ñoom ñaar ñooñu doy nañu waar lool loxo ak gémmiñ moo tax ki bi muy jàpp bi mu raxasoo loxoom ñetti yoon def caa teg gallax ndiku mooy raxas sa gémmiñ dugal ci ndox bomb ko sa baaram côté bi bomb ko côté bi def ko ñetti yoon mbokk yi gémmiñ ku mën a bàkkaar la xam naa bés ngi ñëw ma indi leen incha allah afaatul lisaan gàkk-gàkki làmmiñ sikki làmmiñ ak sikk sa laaw nogay noo yi raxas benn yoon gémmiñ nga taxul mu set moo tax dana ko ñaareel dana ko ñetteel ah, dana ko ñaareel dana ko ñetteel ci njàpp la ah, sunu làmmiñ yi léeg-léeg nga wax ci lu jooyo léeg-léeg nga wax ci lu yàqu bokk léeg-léeg nga wax ci lu yàqub diggante léeg-léeg nga wax ci lu tas daayira bi waaw léeg-léeg nga wax ci lu rëng-rëngee kër gi làmmiñ rek léeg nit nettali ci lu mu fekkiwut mhm. te sunu magum daar xaj abdu waaw euh, njool fuuta waaw sëñ mbay si abdu njool fuuta neena na démb fenkat mooy kii nettali lim gis même su fekkee dëgg la waaw looloy fen kafa bil mar'i kasiban an ñu yuhaddisa bi kulli ma sami'a waa ji li muy wax noonu la noonu la amee nettali gi mu koy nettali lañuy bañ hmm, waaw waaw nettali koy nettali la ñuy bañ fekk événement yoroo enregistrement enregistreur fekk nu la ñu koy waxe yoroo dara gàddu ko dem yóbbu foo àgg nettali ko une deuxième fois boo koy nettali am loo ci yokk une troisième fois di yokk yi rek waaw mbokk yi gémmiñ bu ñuy jàpp dañ koy raxas boo ko defee bu fekkee dañoo jëwoon dañoo jëwoon sekkareetu munta dinde yàpp jëw boo lekkee yàpp ganaar wala yàpp nag mu dugg ci sa bëñ yi dangay jël cure rek roof ca génne leen waaye jëw yàpp ci gémmiñ woowu kiir daa mënu ko dindi déedéet njàpp rekk ko mën a dindi te bañ koo defaat waaw te penc mi nit ñi tabarkàlla war nañu di moytu yooyu war nañu di moytu yooyu jëw rekk wax ci dërëb nit lu mu bëggut te fekkiwu ko nga wax ca ba géex loolu baaxul mbokk yi maa ngi ci julli ñooñ ci weeru rajab moo tax maa ngi toll ci jàpp kii jàpp raxas nay loxoom galax na mu des nag saraxndiku ndiku sarax mooy dugal ndox mi ci bakkan ba xëcc ko fiiru mooy ñendeeku ko waaw bakkan daa am ñaari pax ñaari bën-bën bu gauche ak bu droite ñaari pax yooyu menn pax mi ci la seytaane nekk menn pax mi ci la jabaram nekk monsieur seytaan et madame waaw kenn kaa ngi sa menn paxu bakkan mi kenn kaa ngi ci meneen pax mi boo saraxndikoo bu baax ndox ma laal leen ñu génn boo saraxndikul bu baax nag fa la ñuy nekk nga jàpp ba noppi jullee goo far jëw fi jàpp ba noppi jullee goo far jëw fi allahu akbar saraxandiku fiiru nga daal di sëlmu sëlmu mooy raxas xar kanam bi waaw raxas xar kanam bi ca la fa la bët ya nekk ba kanang fa gémmiñang fa jëm ca sikkim ba jàpp ci lex yi foofu bët nekk bi nga raxasee bàyyil sa xel ci ne bët mën na am bakkaaru xool waaw bakkaaru gis nag no gis amul bakkaar waaye bakkaaru xool mooy xool dara xoolaat ko ngir bànneexu ca waaw waaw moo tax xar kanam bi ñu di ko raxas ba bàkkaaru bët mën na dem yoonam yàlla jéggal la ko yàlla na nu jéggal jéggal leen xarkanamu nit nag góor ak jigéen soreele ko ndax xarkanamu nit la bu ci jigéen defee ay yëf nag mag yee koog defar tuñ maag wat yéen yaag ñoom seen yooyu su boobaa jóge na ci xar kanam naturel dem ci xar kanam bu ñu bu ñu bu ñu defar <laughs> bu ñu jekk-jekkal moo tax mën naa ñàkk nekk awra mën naa nekk awra su fekkee xar kanam bi borom daa sël mu képp yam ca moo xar kanam muur jaayam képp bu nogay muur ko jëm waaye bu nogay jëlee ay yëf nag def ca lex ya jël ay yëf def ca jëb jël ay yëf euh, def ca yéen ya jël ay yëf def ca tuñ ya ah, su boobaa ku ko xool mu bëgg nga xoolaat ko mu jéem a charmer tabarkàlla loolu moom xaw ma kum jàpp waaye nu koy bokk ci waaw nu koy bokk ci donc loolu jar naa bàyyi xel cim jàpp foofu it boo fi taxawee ndeysaan gone jigéen ñi mel ni ñoom Amina Jaw jaayanteeg seen borom ba ñu jàngee laay ja bi jotoon yaa nisa anabi qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa il muminin amina jaw xam ne mi ngi bokk ci nisaa il muminin sunu bara ne ko yudnina alayhin min jalaabi bihinna mu soppi nam doon solo amina sollu jaat sollu yaatu sollu fat sollu jot muur xar boppam bépp ba mu des xar kanam beeg ténq yi di wuti liggéey diplôme yi nit ñi am mu am ko waaw euh, expérience bi nit ñi am mu am ko waaw ñoo def entretien ba noppi ñu ne ko malgré dañ koy dàq lu tax ñu koy dàq nii mu muuroo ci réew moo xam ne dañoo bëgg yàlla jàmmal leen bëgg bu ñaanee mu nangu dëkk ci jàkk yeeg jumaa yi weeru koor ku ne def lu baax waaye jigéen ju fi muur aw yaramam ba mu ak tënk di fi dund fitna joo xam ne boo demoon banu sax doo ko fa dund yàlla yàlla yërëm lan lañ bëgg waaw lan lañu yi lan lañ bëgg kooku dañ ko war na neexal waaw Amina Jaw dañ ko war na neexal ak ñi mel ni moom waaw gisaa nga ci koo xam ne kii da koo def ñu dàq ko ci bërëbu liggéeyukaayam wala mu entretien ñu dàq ko te it ñooñu yàqaluñ kenn dara au contraire au contraire ala xaal maa ngi ci njàpp nit ki toll ci sëlmu mooy raxas xar kanamam waaw waaw jóge ca ragg ñaari loxo ci conc li ba ci cat baaraam bi ci cat baaraam bi ba ci conc li mu raxas ko waaye bu koy raxas ci nañ ci lañ koy wax ne ko sa kër ñaati mètre la ci ci ci ci dëkk bi mu ne trois cent mètres carrés ci laa tabax R plus trois ñu ne ko jërëjëf gis nga boo fi jógee dem yoof boo fi jógee dem yoof sa kër gi xam nga ni muy toll ni sa guddaay bi lay toll yaatuwaay bi toll ni sa cat baaraam yi ak sa sa conc li xaw ma genn wàll mètre lay doon xaw ma nag waaye nun lay toll cët tët moo tax booy raxas foofu sa xel dem ci ne sa kër gi lum yaatu yaatu boo fi jógee yaa ngi dëkk ci kër goo xam ne gii genn wàll meetar lay doon ak sa guddaay hmm, waaw waaw moo tax saabu ba def doon tabaxloo nit kër ne ko bu mu siggi <laughs> bu kër gi siggi am néeg mu ne ko bu néeg bi siggi nga xam day ñëw rek dugg ci biir lemu ca ndànk mel ni kuy lakk mburu foofu ngay dugal mburu mi noonu la néeg ba mel mu néew seet ba dama ca sab sabal masajid ci almadina dafa da nga fa gis yu mel noonu tubarkàlla ca kaw montagne ah bi waa ji aji jàpp ji raggee li tàmbale ci cat baaram ba ci conc li mu masaa masaa mooy def ndox ci sa loxo wëccax ndox ma fab sa ñaari loxo teg ci jëbi xëcc leen ba fa kawar ga ci ginnaaw delloo si leen loolu moo tudd masaa jigéen ji meesu bu ko defee du baax jigéen ji lëttoo kawar bopp guru kawar bopp bu ko defee du baax kawar yooyu bokkul ci nit te yonent jëpp jigéen yokk ci sa kawar ca bokkut yenu nga bàkkaar ayuma mraatin zaadat fi shaariha shay wa laysa minhu fa aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam yooyu waaw masaa ngoog masaa dem dellu si daal di ragg tànk yi nag Hmm. waaw ragg tànk yi wa arjulakum ilal kaabayni ragg tànk yi ba ca dajar ba nga xam ne tànk yi dootul dox lu doxuwut dootul dem fu demuwut wa idaa marru bi laxwi marru kiraam mbokk yi li tax ñuy jàpp mooy kon waajal julli al istiadaad lis salaa Euh, nit ki léeg-léeg sunu nekkul ci julli di bëgg julli lim nekkoon ba julli ñëw génn cam xelam du yomb nekk lu war naan ci bind yi weesu bàyyi alaaj njaga njaay danoo war danoo masa mayub xaalis waaw ku ko faral daan def la dañu toog ba mu yàgg rek mu génne million ne bokk leen ko ñun ña ca mbaar ma waaw ku ko yàgg daan def la léeg-léeg mu toog gëj koo def rek mu leb nu ba noppi may nu ko <laughs> waaw gu yéeme nu ba noppi may nu ko waaw du yoroo fi nàngam nga sëgg mu ne danaa la fay waaw naa la fay de ndeysaan nga nga jox ko li nga am kee jox ko kee jox ko mu boole muy cinq cent mille wala deux cent mille mu may nu ko mu néew waaw ko daan faral def lu bare bare bari tubarkal yàlla na yàlla def lépp ci téere jëfam waaw mu nga nekkoon dëkk bu ñuy wax njare Tuubaa Njaay waaw ndeysaan waaye bis ba mu may nu lu bari te mat nañ ñun tam ñu bari ñu ne ca nag di calculer te booba machine yi xewut machine ne ci téléphone yeeg yooyu machine ak calcul xewut ku ci ne ci ñun di seet ku ci ne ñaata lay am ñu ne ca ne ca ne ca jot ñu ne nañ julli ñu kàbbar di julli bi nu sëlmalee am ci mbooloo mi ku ne kenn ku ne nàngam lay am mu des nàngam ñun ñu daay bàyyi yëf yi nag daal di xalaat kii bi ñuy julli kon moom daf doon calculer bi muy julli daf doon calculer loolu la lislaam di bañal aji julli waaw waaw loolu la lislaam di bañal aju julli tey bu ñu amoon bu ñu amoon professeur Jibi ak professeur Jibi Jaxate professeur Djibi Diakhaté di jàngale benn matière professeur Djibi di jàngale benn matière bu professeur Djibi génnee professeur Djibi mooy dugg professeur bi njëkk a dugg matière bi mu yor xale yi bu génnee ca la xale yay nekk bu dee ko pédagogue professeur Djibi muy ñëwaat moom tam bu dee ko pédagogue day jël xale yi ca lañ nekk indi leen ci kuuram andi leen tukkuram walaay ndeysaan amoon nañ sunu professeur ji bi mu nekkoon ca Jurbel ndeysaan Jibril Fall waaw yàlla ko yàlla yërëm ndeysaan waaw kon am nañ fi ne ñoo ngi ñeenti ñeenti professeur jibi <laughs> Jibril Fall mu njëkk ma ak Jibril Fall mu mii ndeysaan ak Jibril Jaxate ak Jibi Sàll waaw xëy na ak beneen jibi boo xam ne bi peut xamunu ko waaye daal mbokk yi dañoo sëlmal rek mbokk ma ne ku ne nangam lay am mu des nangam loolu la lislaam di bañ daa bëgg nit ki bu buy julli mu mën a yëlëb xolam ak xelam ci lim nekkoon def ko ci li muy nekk léegi waaw ndax da ngay bëgg a taxaw ci kanam alxaaliq dangay bëgg a taxaw amaam alxaaliq xaaliq ki la bind ngay bëgg a taxaw ci kanamam te léeg-léeg nit ñi di waajal ni ñuy taxawee seen kanam kilifa waaw tey tëni bi ma yendoo ca kër ga su ma président Macky ne woon dama laa soxla du ma yóbbu tëni booba déedéet caraax ya may solit falaa koy bàyyi waaw <laughs> yal na ko yàlla yokk wér dama bëgg wax ne kon audience bi ngay am ak nit sa sëriñ sa njiitum réew ministre nàngam audience boobu ni nga koy waajale boo cay dem sunu borom daa bëgg ñu waajal audience bii bala ñoo dem waaw njàpp daal di ñëw taxaw taxawaay boobu moo tax danga koy waajal ci sam xel waajal ko ci say xalaat shawaaxilul xayaatil kathira yépp nga fëgg ko waaw loolu tax ñu ñu ne ko kon na nga jàpp raxas cër bi raxas cër bi raxas cër bi raxas cër bi qabla al qiyaami bil ibaada ah waaw loolu tax xalaat yooyu nga xam ne moom nga xalaat yu ndaw yeeg yu mag yeeg yomb yeeg yu jafe yépp boo jàppee rek yaa ngi jël sa xel ca kuur bu njëkk ba di ko indi ci kuur bu mujj bi moo tax imaam Demba Diop ñoom yàlla na ko yàlla yokk wér bu leen di jàngal bu ñu jàngal nit ñi daawa dañ lay jàngal njàpp xemeem loola ko lool ba ngi xemmeem ko ñu teg ca lañ ca war a teg njàpp lu am solo la waaw njàpp lu am solo moo tax boo boo amul ndox ñun la tiimal ndax li li li li ndox man njàpp tiim dong ko mën a wuti caloo la muy suuf ndax ndox ak suuf moom ak suuf ak ndox xàmme nañu am na fu ñu bokk lu baree bare bari ñoom ñaar ñooñu lu rekkat la mu tax boo duggee classe di jàngale nga gis eh, jàngalekat bi dugg si élèves yëpp jóg taxaw ne ko xum naa yaa sayidi waaw jóg nañu yow mi nuy jàngal su ko defee mu day jàngalekat mu bàyyi leen ñu taxaw lu xaw a yàgg mu wax ak ñoom ay baat bu noppee ca baat ya nag daal ne leen juluus ñu daal toog ne ko jalas naa yaa sayidi waaw mu tàmbali liggéey ba tàmbali njàngale ma laa tuxarik bihi lisaanaka li taajala bi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa ida qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alayna bayaana waaw ndax nit ki fekkee daf doon def commerce mbaa mu wàcc ca usine ba ah ñu ne ko jógal nga julli mën naa am jafeñ-jafeñ ci jooxe julli ga te xelam nekkut ca lee bu fa doxalee am njàpp nag walla mu doxale fa lu wuuteekum njàpp muy tiim mën naa am li ma wax ni boo demee ci benn téere bu tudd al islaam wa tibb al xadiis eh, eh, da ca fekk wax ju gën a yaatu jooju muy lislaam et médecine moderne da ca fekk lu gën a yaatu li may wax nii mbokk yi ak seeni for yëkkate jataay bi bu ñu dégloo waxtaanu ajjuma waxtaanu samedi waxtaanu dimaas dana ñëw jekkali wala wéyal sunu bind bi nuy jàng julli li fekk ñu ngi ci weeru rajab incha allahu subhanahu taala dëgmal chaabaan ramadaan nekk ci ginnaawam buy ñëw yàlla ñu fekk buy dem yalla ñu fi bàyyi sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi taxaw yor seen i këyit bëgg leen a fiñ fàncal xibaar yi tubaab fiñ fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara ñuna àndoon joxtaan moo di seen mbokk yun Sall in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.